du ma jël benn engagement duma jël benn responsabilité ndengeeñ ci xale bii nga xam ni mooy bëgg a ñëw calmez-vous et puis ngeen kontaan seen xalaat leen lu leen mës a neex ci àdduna ngeen xalaat ko pour ngeen kontaan il va vous énerver ça moom waa je vous l'annonce pour ngeen xam ni damaa dégager sama ay responsabilité lu leen mës a neex rek xalaat leen ko ngeen bàyyi ko moom mu ñëw il veut chanter waaye am na volonté waa mais il peut pas mënul e eh, lool déglu leen ko Baye Zale DJ Ba sama son la man maa ko way sama son la musicien la plus chanteur égal grand artiste merci international fu ne dem naa fatu wayti musique Europe wàcce naa ko Afrique waxi nopp Youssou Ndour Omar Pène Ismaïla Lo ñoom ñëpp jaar naa si ñoom Wally Seck album bu mujj bii man maa ko jot waa loolu yëpp dama koy sante sama yaay non ma dama bëgg sama yaay sama yaay damaa jàppale ci côté bi yëpp n'est-ce am na ñu bëgg fi seen yaay ah, ku bëgg sa yaay tàccu tey laay way sunu yaay sama gaay nañu fonk sunu yaay waay sama yaay sama yaay booy sama excuse maay jéggulu sama yaay maa jégalu maa jégalu tàccu leen tàccu sama yaay sama yaay booy garaawul garaawul garaawul baa ngi woy sama chéri Adja Seck Adja Seck am na ñuy bëggante fii képp kuy bëggante laala sa xol à droite Adja Seck mon amour je sama xol boo rafet sama yaay ak sama séeri bu ma leen di woy damay faa mu def nii quoi loolu coo juba am problème léegi baa ma dem woy sama papa sama papa bu ma koy woy moo duma jooy ndax yàgg damaa wax Baye Sall góor day dëgër Baye Sall góor day dëgër léegi am na ñu bëgg fii seen papa ah yow ma bëgg nga sa papa léegi damay way moo waxee sumi yama papa sumi yama ngeen papa ma waxaat sumi yama baay baay sumi yama ngeen baay baay cool acca sumi yama baay baay sumi yama sumi yama baay baay sumi yama À bientôt. Merci beaucoup. Yeah, Baye Zale merci beaucoup. Le maximum de bruit pour Baye Zale. Tàccu leen ko bu baax a baax a baax.